réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll info di seetaan les patriotes tv dal leen jàmm ci xibaar li gën a fës ci xibaar yi ki xam ne moom e loo xamante ne di leen féliciter di leen encourager ndax EDK benn entreprise boo ne 100 pour cent sénégalais yi ñoom ñoo ko daal di moom gannaaw loolu Guy Marius Sagna bu ko nguuru Sénégal daal ko joxee bon d'essence boo xam ne ko daal di jël ci station Shell wala station bii di Total nekk loo xamante ne français yi ñoom dafa daal di bañ a catégoriquement ne moom kat du jël li nga xamante soutenir entreprise français bàyyi li nga xamante ni moom moo di entreprise sénégalais di wax li nga xam ne moo di euh, Sénégal moom moomu doomu réew moo mun a tabax li nga ne moom moo di Sénégal kon du daal di jàppale benn entreprise français boo xam ne bàyyi li nga xam ne moo di entreprise français yi mu doon loo xamante ne lu rëy rëy la donc ñëpp xam nañu kat Guy Marius Sagna mooy avocat du peuple la di ko wax yàlla na jàmm yàgg les patriotes TV